asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki Sénégal mbokki waa bitim réew fu waay mën a nekk góor ak jigéen mag ak xale bàyyiwuñu kenn ndax li ñuy bokk kenn mënu koo xaaj di ko séddoo muy Sénégal fu waay mën a nekk nag di yëngatu di immigré nga xam ne tey la yóbbu moo jom ak ngor ak liggéey indi sa réew liggéey dimbali say jur immigré yi génn yépp dem loolu leen tax a génn dem jom bëgg a faj soxla te mënoo koo faj sa réew loo liggéey mu yàqu wala buñ la yàqalee boo kalamee doo am dara wala nga yónnee yëf ñi lekk ko toog ci boo amdara. doo am dara jafe-jafe yooyu ñu bari loolu moo leen génn yóbbu leen bitim réew yàlla leen yàlla jox lu ngeen mën a dellu see ci jàmm réew nag wax ak defar moo koy defar waaye loo bari bari bari maqaama ak xam-xam wala ak may te doo wax doo defar yow bu réew ma yàqoo génnoo ca Sénégal nag ca bu njëkkoon am na ñu daan wax bu saa yëngu waaye boobaag léegi bañ demee ba léegi ñu mel noonu gisatuñ leen te réew mi nag fi mu nekk ni àgg nañ fu nit war a waxee waaye digguñ kenn wax li ma jaaxal nag tey ba ma wootee lenn ci kër yi diine yi ñun ñooy def léeg-léeg ñu génn kàddu wax ndax yàlla ñu ko sant suñu Sénégal gii nag dafa am lu fi feeñ ci fukki at yii ak ñaar loo xam ne mosu fi am mooy doomu réew mi la ñu fal amoon yaakaar ak njort bu rafet mu wax ñu ay kàddu ñu gëm ne loolu xëy na dana ko def ngir askan wu baax wu mu génnee askan wi nga xam ne askanu wu tànneef la ñu yaakaar ne tey jii dana am lu mu rus ci xeet wi mbokk ñépp woteel ko fal ko dimbale ko ndax dafa jote woon ak Ablaye wàdd waaye moom daal ba mu jotee réew mi ak léegi dafa mel ni dañ ko reyal doomi bàjjinam kum ma am ndey ak ku amul ndey di fal ay bokkam jël koom-koomu réew mi yépp place yu baax yeeg place yi nga xam ne am na solo jox ko ay mbokkam wala mu jox ko ay xaritam ku yëngu mu jàpp tëj lim tëj ëpp na juróom-ñetti téeméeri doomu aadama yi ci mujj mooy Cheikh Omar Diagne professeur. Abdou Karim Gueye bu xurunqax Ousmane Diagne ci ay ay wax waxi ree rek waaye moom nag am na ay saagakat yoo xam ne ñoom dañuy saaga saaga yu bon di wax lu bon ñooñu ne ñoom ngelaw laa leen dëpp kenn waxu leen dara réew mi fi dugg ba mu faloog léegi mësu ko gis yaa ko biiral yow lañ fa fekk yaa ko yàq saaga ay équipe ay équipe ñooy saaga kenn mësugul gis lu mel ni lii sax ay site internet la ñuy di wax rek. kenn mësu ko gis ba mu toog ak léegi li fi dugg ci réew mi monsieur le président de la république monsieur Macky Sall yow yaa ko indi Sénégal fi mu àgg nii yëpp gannaaw yàlla ci ay jafe-jafe ci sa loxo bi la yow la parce que tey jii am na fi nguur soo xam ne tey biñ ko joxee xaalisu kayit bi su journaliste bi ko doon laaj waaye gis nga journaliste boobu fi mu mujjee moom it walbatiku di jéem a am lu muy defar lu muy wax ndaxte ba muy laaj lañ ko tontu mooy boo ma waxatee ma porte la plainte waaw yow ñu teg la ci réew mi jox la yëf war la ko laaj nga ne soo waxat porte la plainte maanaam daal yow kenn buur nga da ngay buur di bumi lu nekk nag yaa ngi koy def ci sa alal ci alali réew mi Macky Sall nekk fi waxu ko dara am na géwél boo xam ne wax nañ ko waxati ko lim yor ci alal bañ di ko sàcc juróom-ñetti téeméeri million lu topp nga xam ne xaalis boobu tey deli la daf ko war a def ci banque te keneen kum doonoon tey ñu jàpp la dugal ci kaso kenn waxu ko dara lii nag tax na ba ñun sëriñ si lenn ci kër yi diine yi mënuñoo noppi de te l'islam bii dafa mel ne ci ñun la bëgg a yàqoo te l'islam sax kenn mënu ko yàq waaye ñu ngi ko bëgg a sikkal war ko doole yàlla nag moom du fi jógee hayyun laa yamuutu waaye da ngay bu buñ ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman juróom-ñeent fukk ak juróom ci téeméer waaye waaye te te juróom-ñeent fukk ak juróom yooyu amuñu baat mënuñoo def mënuñoo dindi quatre-vingt-quinze pour cent musulman Sénégal. te ñoom amuñ baat mënuñoo def mënuñoo dindi mais waaye quatre-vingt-quinze pour cent yooyu lu muy dikk te nga xam ne ab président de la république bu defee élection su amee soixante pour cent sax gañe na teg gouvernement am teg ay loi am di jàpp di tëj ñun nag quatre-vingt-quinze pour cent yooyu nga xam ne ñun moom lañ toogee Sénégal muy baat bi ñun mënuñoo def mënuñoo dindi kenn di ñuy windeel muy Macky Sall dëkk Fatick gii dëkk bu tedd boobu dëkku Saloum boobu dëkku Siin ak Bawol yaru Ndakaaru yaru Parcelles ak fépp di doomi Ndakaaru doomi sénégalais ay waajur bu baax yooyu yan ñu leen yàlla fay ñu dëkk Sénégal tanewu fi kenn gënu fi kenn Sénégal yi encore jël ko fal ko teg ko fi si jox ko lépp jox ko teranga jëpp moom mu jàpp dëkk yi yi gën a garaaw di def lu ko neex Tiwaawan nekk fi Touba nekk fi Laayeen nekk fi Canaba nekk fi eh, Njaasaan nekk fi kanen nekk fi eh, daru Salaam nekk fi Eh, dégg nga maam ko sëriñ wulli mu baax ma ca Gàmbi nekk fi Sokone nekk fi Ñaseen nekk fi xeeti kër yi diine yëpp ba ba dem Daaka ba ba ba ngay dem Louga suñu mbokk yu baax yi suñu kilifa yu baax yi yëpp ne fi kenn Macky Sall kese di windeen lépp lu ko neex di ko def te kenn du wax këru diine ku ko neex dëkk bu ko neex mu jàpp fa nit tëj kenn du ngaan mais man loolu daf ma jaaxal man nag dama xamut man ñun ñi wooyu ci diine yi ñun lan moo ñu dal benn Macky Sall nekk fi jàpp Ousmane Diagne tëj ci kaso bi kenn ngangul jàpp professeur Cheikh Oumar tëj ci kaso bi ci lan ay affaire imam Alioune Badara Ndao mii nga xam ne ko tëj kaso te moom moo ma wax ne ma bi mu génnee ci kaso bi ba bi mu faatu nii mënu taxaw lu yàgg parce que feebar bi ci kaso bi la ko dalee ñu taxaw wax rek nga jàpp leen yóbbu ci kaso ba yóbbu leen nag wala nga te leen Ndakaaru nga yóbbu leen léegi sàng fële ci côté euh, yoonu cees dégg nga ko Sébikotane kenn waxagul ku yëngut rek nga jàpp tëj kenn Macky Sall kese nekk fi ëpp doole Tivaouane ëpp doole Touba ëpp doole Ndiassane ëpp doole Layène ëpp doole këri diine yépp ñëpp ne pat kenn waxul mu jël tubaab bi jiite ko ci kanamam société yi yi yépp yàqu na jël doole jëpp jox ko tubaab yi kenn du wax waaye léegi ñun nag wax dëgg yàlla neexu ba neexu waaye war nañoo xoolaat su fekkee dañoo gëm suñu maam yi gëm suñu bàyyi jox leen cër jox leen li leen yàlla jox bañ naa ñu kër yi diine yi te ñun kër këri diine yooyu ñu nekk quatre-vingt-quinze pour cent waaye amuñ baat ci réew mi mënuñoo jëf mënuñoo jindi war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax réew mi Macky Sall yàq na ko lenn nag monsieur le président de maa ngi la koy wax gis nga réew mi moomoo ko ismaan Sonko bii wallahi Ousmane Sonko yaa ngi dégg ñu koy tudd mais Ousmane Sonko dañ ne la suñu tànk mosul taxaw fu mu dëkk mosul ñu toog wax amuñu carte membre parti Pastef amuñu carte membre APR wala feneen wala feneen ñu réew mee ñu ñor waaye moom nag dafa nekk xale boo xam ne la gars yi wax ne loxoom dafa set parce que kuy liggéey ci barab fukki at ak juróom yow Macky Sall nga fekk ko fa dàq ko ñu luñ bëtu ko gisuñu benn dërëm bu mu sàcc gisuñ dara dara lu mu def weex ta kooku su su laajee Sénégal war nañ koo mën a jox. nit ku sell la nit ku maandu la loolu lañ gis buñ gisee nag nit ku mel noonu en tant que nitu diina ñun duñ mën a dul appuyer ko ñun de moom la ñuy jàppale ndax dañoo gis jikkoom bu rafet gisuñ muy tuumaal nit gis ñun mu sàkk équipe di leen saagaloo kenn gis mu def lu mel noonu ngel la waaye yow sa bopp kese bi yow Macky Sall nga ne léegi yow da ngaa bëgg tànn ki lay wuutu mais loolu mënu am duñ ko seetaan de genn wàll ci ëpp te it mën naa wax ne quatre-vingt pour cent ci nit yi diine yi àndatuñoo ak yow lu tax ñu bañ la nag yaa ko def yaa tax Sénégal yi bañ la yaa leen wal nañ la bañee yërëmoo leen dimbale woo leen di yàq liñ am foo jaar ñu mere la foo jaar ñu bañ la Sénégal yi kat ni ñu waxee quatre-vingt-quinze pour cent musulman noonu nga amee quatre yoo xam ne bëggatuñu la bu ñu seyoon tey nga xamal ñu jàmm jàmm la woote nag nga jël say dàll ndànk daal di dellu nag ca France ga ca sa mbokk ya ndax foofu nga def mbokk léegi booy wax foofu ngay déclarer sa déclaration doonte kon am na journaliste yoo xam ne fi mu nekk ni tey ñuy sawet waaye na yow boo demee ba war a wax farata da nga leen teg dem sa yoon waxee ji ko feneen waaw kii wàññee ko barki démb yàllaa ko yóbbu waaye lu mu bon bon tey waroon ngaa mën a sànni sa kàddu ñuy dégg na jaale nga ko ana lan la la def yow kay yaa ko tooñ yow yaa dem fekk ko këram guddi toj bunt yi manooti ko génne ko tëj ko ñaari at ak juróom moom ci boppam li mu wax dégg nga ko li ko dal ci feebar bi ci kasu bi la ko jëlee mu faatu jaaliwuloo ko jaalewoo ko ay mbokkam xanaa di jaale ren bële ci anglais ak ñeneen ak ñeneen waaye yow réew mi boo ci dëkkee ji dafa la teraanga ju toll nii doomu Sénégal faatu nekkoon imaam buy ka nga mën a maandu ci moom mais yow itam nag loolu soo ko defee yow looy looy niru ak lan lan moo tax nga def loolu ak yow yaa ngi bëgg a tuumaal sa bopp parce que tey su tey kii dafa faatu te yow yaa indi ko say gendarme dégg yow kenn déggul nga wax jëm ci moom kenn déggul foo ko jaalee monsieur Macky Sall te nga dëkk ci réew mi kii dëkk Kaolack wax dëgg yàlla réew mi defaroo fi de lan ñu waxoon day gisuñu ko lan ñu gisuñu ko Sénégal yi nag sonn nañ ba àgg ci coono foo ko nag ëpp na ko moo xam ñi ne ci réew mi ci Sénégal moo xam ñu nekk bitim réew lu fi waaye amoon fi mu nekk nii rek yàqu na port bi kenn mënatul def dara commerçant yëpp daan nañu bëri na lu ñu tuumaal commerçant yi kat. amul gis nga yokk waxuma ne waxuma ne ñëpp jub nañ de waxuma ne it ñëpp jubuñu waaye li ci ëpp nag état leen ko teg yow loo doon jaayee fukki dërëm ñu dem ba yàgg ñu yokk ci juróom ba pare na la jaayee ko fukki dërëm wala fukki dërëm ak benn doo ko man boo gisee marchandise cher li ci ëpp dëgg la de am na ñu dëng waaye li ci ëpp ci état bi la taxe yi moo jéggi dayoo boo waxee ñu naan Ukraine guerre Ukraine guerre Ukraine fekk na Sénégal am coono ba xamee ne courant mu ngi seer ak ndox. booba xeetu ICRA sax kenn déggu ko gaspillage bi moo ëpp parce que tey bu cérémonie amee ñuy maye ay millions di génn ay millions di sànni ci mbedd bi sa géel boobu di ko def di génn ay million di ko takk ci dënd di sànni kaay bi dañ koy yàq ah yow sax dégg nañ nga wax ay am naa huit milliards Abdoulaye Wade ne moom yow nga ne moo la ko may Abdoulaye Wade ne man mayuma la ba léegi waxu ko nit ñi foo ko jëlee huit milliards yooyu huit milliards bari na de. waaye ñi am ay boru cinq cent mille ak un million moom ñu nga ci kaso ba tëdd affaire euh, amnistie bi ñuy wax man yaakaar naa ne Karim Wade wala Khalifa Sall xanaa ñàkkuñ fayda ba ñu leen di ba pare kuñ ci amnistie rek day mel ni yow da ngaa nangu ne yow liñ la tuumal yaa ko def amnistie mooy baal leen la kon yow xanaa li nga defoon yaa ko def bañ baal la yaakaar naa ñoom buñ ko nangu de parce que li ñu bëgg ñu atte leen ne leen liñ doon tuumaal liñ leen tuumaaloon du yéen loolu yaakaar naa moom la ñu nangu kon nag monsieur Macky Sall dañ lay ñaan nga indi jàmm Sénégal ñaari mandat nga waxoon yépp dégg nañ ko buñ ca àggee jëlal say bagage nga dem sa yoon te xam ne kat as gor ca wax ja loolu nga nampon moom lañ fi fekk askan wi nga juddoo loolu nga fi fekk ba góor gële ca daaka ba sax ñu koy sant di ko gërëm wax na ne kuy lekk waaye lekkal ba reg boo paree nga defar fa nga doon lekke ba mu jekk nga raxasu jóg ëllëg ku ñëwaat toog fa nga toogoon lekk waaye xaar ba ñëw seppi sa loxo de baaxul barki démb dégg naa benn audio bu mu ko waxee góor gi ñu ngi lay sant di la gërëm suñ bokk murit boobu ci Touba it la waxoon ne dañuy seetaan dëgg la man ci kër yi nii laa bokk dañoo seetaan taalibe yi kat dañoo seetaan aussi population Sénégal waxaluñ leen defaluñ leen état la ñuy jàppale loolu nag ci ñun la man soo bopp laa koy dalee parce que ci laa bokk loolu góor gi wax noonu Baye Fall boobu wax na dëgg bul dellu gannaaw mukk di tuub wala bu la kenn naan nangam nangam ndax yàlla bind na la ci tiyaabo bu dellu gannaaw de ah ñiñ fal nag bëgg leen tuumaal kaay leen fal leen ministre de la justice wala ñu fal la leneen pour ñëpp njort ne yow dañ laa bëgg a def loolu bon delloo leen seen xel réew doo ci juddu bu la dara dalee ñëpp jóg tey jii kuñ ci doon fitnaal population bu jëkk cotisel la capitaine Touré moom bi ñu ko dàqee dañ koo dajaleel alal pour dimbale ko ak keneen ak keneen ak keneen kon bu leen fàtte leen fal bu leen fàtte seen population buñ ci fal kenn benn Macky Sall mi fal la ne la pour séntu ci yow rek lu mu la def loo def ko jàpp loola say bokk nga jàpp leen soppi loola constitution nga jib ko soppi ma ne ànd na seen xel ay jullit ngeen da ngeen di dund di dee te diggante dund ak dee sorewul ana ji fi nekkoon daaw am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi ci suuf si te ñun xamu suñu ëllëg nañu ànd ak suñu xel moo xam muy calife magistrat moo xam muy procureur moo xam muy ministre de la justice ou ministre de l'intérieur ba leen xel ne ñun ñëpp kenn ku njëkk a jiitu sa bokk yi ñoo lay gas suul kon nag buñ la wooyee fan la nga yaakaar xaalis wala nga yaakaar palto wala nga yaakaar garaat bu mu tax mukk ngay jël saw askan luñ la sant rek loo xam ne jaaduwul nga def ko te nag fekk yow waxoon nga bu yàgg yoon nan lay tëddee nga taxaw bëgg a walbatiku indi la contraire ànd leen ak seen xel benn Macky Sall mii bu mu yàq réew mi fi mu nekk nii waa amatul même commissaire yeeg ministre euh, euh, euh, police yi sax ñimetuñu àtte sàndarma yi ñëw na léeg-léeg jàpp ñu jàpp nit duñ ci ñemee sa xóot parce que boo ci xóotee ñu créé le problème léeg nga jàpp ni di ko enquête enquête bu xóot téléphone jóg ca kaw nga bàyyi kenn mënatul liggéey dignité amatul ci autorité yi république amatul ñëpp a ngi politique ñëpp a ngi politique Macky Sall yaa dugal ñëpp ci politique Macky Sall baal Sénégal ni meloon da nga ko fekkoon Sénégal bu dal Sénégal bu teey lépp nga soppi ko docteur yi nga politique dégg nga ab sëriñ wala imam mu ngi politique ministère baa ngi politique dégg nga procureur baa ngi politique juge baa ngi politique dégg nga directeur société baa ngay politique bañ yóbbu ko poor wala mu ngi politique bañ def ko maire politique rek ñëpp dugal nga leen ci politique. dégg nga xaalis ñu ngi koy gaspillage di joxe xaalis partout nga ne léegi yow boo déggee ci koñ bi boo boo buñ la élirul ma dàq la mu jël alal kees gi di ko séddale te nga ne bëggoo corruption yow si bopp ngay jënd ay nit jënd. waaw corruption bu fekkee da nga koy xeex te yow mi koy xeex yaa koy def ana fan la ñoo ñu jëm. te nga ne ñun duñ wax danañ wax de danañ wax parce que moomoo kenn doom nga comme ñëpp dëkk ci réew mi te ñoo la fal garaat boo am ñoo la ko jox ngeen la waay yàq nga sénégal nag te it bu nit yëngatoo nga ne ko da nga def appel expression te yow yaa def appel expression boobu nga wax yaa koy def yaay seet loo xam ne jaadu nga def ko ku jóg yëngatu di manifester nga dóor wala nga yebal police sànnee xel yéen police yi ak gendarme yi maa ngi leen di ñaan delloo leen seen xel réew mi ñoo ko bokk séq ko ñi def manifestation naqar lañ am mais bëggu ñu yàq kon nak monsieur le président day bilik indi jam Senegal jam lañ la laaj senegal moomuloo ko ba jël saw yedd di door moomuloo senegal bu ko la neex nga japp kasso bi moomuloo ko tribunal bi du tribunal kasso yi du sa kër da nga ko fay fekk te ya ko gën ragal ñepp nak ndax ba nga ci bëgge dugal suñu kilifa gu bax ga mom nga dem séti ne abdallah ablaad daf may tëj mu le déere abdallah du la tejj nga ne ko wax ci mu wax ci ba abdallah bàyyi ba léegi nii mosu ko la kaso waaye mosoon nga ko ñëpp nag yow ñëpp mosoon nga leen kaso te yow nangu woo mos kaso yaa gën a xam li may wax yaa gën a ragal kaso ñëpp pourquoi nga ci dugal nit ñi mbokk ñu ngi leen sant di leen gërëm ñun nag yàllaa ñu sant ñu wax kon nag bu wax jotee fokk ñu wax ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.